Mbàkke Kajoor asalaamualeykum mbokk yi daayira safinatul aman sëti sëriñ Mouhamad Lamine Baara Mbacke yi ñoo leen di yëgal conférence bi ñuy amal bokk nag ci programme Magal Mbacke Kajoor édition 2022 yemook mercredi 21 décembre ni ko nag seen kilifa sàkkoo si ñoom sëriñ Moustapha Mbacke xalifa Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbacke ngir nag ñu mën see fàttaliku mag ñi àndoon ak sëriñ Touba ca Mbacke Kajoor ren jii nag mbokk yi parrain bi di sëriñ aadama Guèye bokk ci mag ya jaayante woon ak sëriñ Touba ca Mbacke Kajoor moo taxit safinatul aman sëti sëriñ Mouhamed Lamine Bara Mbacké yi ñoo ngi koy yëgal xalifaam di sëriñ Cheikh Fall Guèye ak mboolem njabootu sëriñ Adama Guèye bàyyiwuñu kenn fàttewuñu ñenn ñun nag bis bi ñoo ngi ko dara jaale kenn si ñu àndoon ak sëriñ Mouhamed Lamine Bara Mbacké newoon soldaaram di sëriñ Modou Diarra Guèye a mbokk yi xew-xew baa ngoog ñoo ngi si woo ñëpp ñu ni fa seen si nag ànd ak conférencier bii di sëriñ Fallou Bousso Hassan si thème bii di rôle de la jeunesse dans l'enseignement de Cheikhul Khadim taxawaayu ndaw yi si jàngaleb sëriñ Touba mbokk yi Abdoul Aman sëti sëñ Mouhamad Lamine Baara yi liggéey bu mag ñeel liggéeyub institut Cheikh Mouhamad Lamine Baara Mbacke ak it dajale lépp luy bindam moo taxit ñoo ngi siy sàkku ba léegi seen jaayante ngir liggéey bi dox mën a matali kon mbokk yi ma ngoog Safinatul Aman sëti sëñ Mouhamad Lamine Baara Mbacke yi ñoo jóg taxaw tem ngir nag topp tànk yi fi seen maam bàyyi woon di liggéeyal Serigne Touba.